waaye gis ne ne saay su nekk rek bu amee ay yëngu-yëngu ci réew mi saa bu amee ay yëngu-yëngu ci dëkk bi bu amee ay manifestation ak i leneen dañuy gis ne ne wàllum école saay su nekk rek cours yi dañ koy arrêté saay su nekk ndongo daara yi dañ leen di toogloo seeni kër maanaam li nga xam ne moo di programme bi war a sax li nga xamante ne mooy quantum horaire bi duñ ko mën a continuer comme il le ndaw ñi dañ leen di déranger te ku xam daanaka ci diir léegi léegi ci ay weer ñi ngi ngi dem ci ci examen donc ñun ñii nag di ndaw mouvement pour un enseignement de qualité dañuy ñaawlu loolu te li ñu bëgg mooy suñu autorité yi vraiment que bépp problème buy mun ti am na ñu xam nu ñu koy gérer waaye bu ñu laal li nga xamante ne moo nekk école nañu nañu épargner école carrément ci bépp problème ngir xale yi mën a concentré wu waaye tamit ngir tamit ñu mën a am enseignement de qualité ngir tamit bu suba muy démb suba ñu mën a am ndaw yoo xamante ne vraiment dinañ nekk ay ndaw exemplaire ay ndaw yoo xam ne fépp fu ñu toog danañu xamante ne.